yaa ngi dégg ba Afrique yëpp dañuy copier ci Sénégal présent Sénégal émergence ngir développement Sénégal yaa ngi dégg bu njëkk ay car rapide lañ doon am Dakar léegi amatoo car rapide léegi ay bus dem dikk lañ am ñu confortable tey jii sooy dem Dakar Kaolack da ngay dem fee jël dem dem dikk mu yóbbu la tey jii ngay war a dem jëm ñaajo teer bi ngay jël mu yóbbu la nga war a dem Liberté 5 bertee baa nga fa mm-hmm. yaa ngi dégg point yi yaa ngi dégg koo xam ne nit koo xam ne comme vision la te ku bëgg Sénégal la nit ki nag soo koy jox da ngay jox ku bëgg Sénégal ku am ambition Sénégal man loolu laa gis si président Macky ak gis-gis boobu noonu xam na ku yërëm askan bi la ku fonk kër kilifa diine la ku fonk abbé bi la man loolu laa gis moo tax loolu ma bëggoon ci président Macky ma am sama conviction ànd ak moom sans dara dugg ci. dëgg la euh, ban année nga euh, ci dugg 2008. 2008 maa ngi dugg 2008. bi nga duggee affaire ba tey génnoo. non génn ko non man nag yàlla dafa ma defal man du ma pëlu màngaan. ok xam nga na ñoo xam ne ay pëlu màngaan lañ am na ay xeetu jaam yoo xam ne warkat yoo xam ne président Macky Sall dafa leen façon responsabilité bu nekk am na benn mbaam àll bu dëkk fii sax côté côté fii nii benn mbaam àll bu dëkk fii booru Ndofane gis naa ko dee mu def benn déclaration ne ko man Pastef damay ñëw soo leen ma soxla sax damay ñëw. benn mbaam àll mooy maire kër Bamba. benn maam maam mbaabaal la boo xam ne président amul lu nga defalul ci moom defal na ko lépp gis nga nit da nga war a gore am jikko ju baax parce que xam nga ne ñoom président defal na leen lu ne madame Faye Sall defal na leen lu ne ñu fondement parti APR sax ñoom li ñu ci bénéficié wu ñoom bénéficié wu ci yaa ngi dégg man bokkuma ak mbaabaal yoo xam ne dañuy dugg tey génn yaa ngi dégg tey jii man président Macky Sall su doon woon tëdd si mun naa toog jàpp sama sa ñaam yaa ngi dégg mm-hmm. mais tey jii ñoom ba président Macky Sall doo lay tëdd ñom lepp li ñu waroon japp dañ ko waroon ba bañ a président Macky Sall. ne tey tey ñu doon président Macky Sall mais il nag jikkoom borom pax ay polu la ñoom dañuy rek ñax duñ fa dem. bu ñu bu ñu bu say wax nga ne am ay ay euh, ay maire lañu nañ ci euh, nañ ci euh, président Macky Sall ne ñoom bu leen waa passé sax ñu demal seen loolu tu penses pas que c'est normal. parce que euh, boo nekkee ci ci ci ci mairie état nga war a mën a xaar pour mu jàppale la donc ku nekk ci état bi ngay àndal. non non gis nga état dafa am lu ñu tuddee collectivité ñoom seen benn kii ministère bu ñu logé wu. Mhm. yaa ngi dégg di nga loolu problème administration la. Mhm. ala kulli haal war ci dëkk ba. Mhm. da ngay def yaa ngi dégg ndax commune soo ko jiitoo jiitootoo kenn. dëgg la mbooloo bi yëpp nga jiital Pastef APR au niveau. ah parti yëpp nga boole yaa yaa seen kilifa lépp lu war ak état ci yow allah kulli xaal la koy def mais tey jii nga ne man damay ñëw sama kër doom yi ne la bëgguñ la fa gis yow ngay forcer nit di dem. waaw doomam dañ ko wax ne ko bëgguñ la fa gis. doom yi ñoo ne ko bul damay dem pour man gars yi seen reetu gor sax jàpp naa da dawul seen yaram nga ne man tey damay ñëw fii nii tey def émission directeur bi ne la man soxlawu ma la bul fi ñëw. ku représenté émission bi ne bul fi ñëw nga ne damay ñëw far foos ñàkk ngor ak ñàkk góor na yëfu mbaam àll yooyu war a dépassé ci réew mi. bu ñu fa jógee gis ne euh, président Amadou def sorti euh, wax carrément ni que euh, li mu li mu dund ci élection yi que ne dañ ko jàppale ñoo ko ñoo ko dugal ba pare comme maye bopp ba pare loolu ci la mel. man pour man Amadou Ba bi ndax man toog naa benn réunion man yàlla dimbale na woon président Macky Sall rencontre bu ñu am fi fii nak man dama kay fekkee ma ngi nuyu son ben convention amat ñun dañ doon luye suñu benn oto fu président dem Sénégal dañ dañ koy topp ndax man duma topé nit alal duma topé ngir xaalis mo la man awma dara ci politique ndax man sama convention la ala bu ma la xol di rus ma may seug ma nga may na ma jaaroo lii nga ma jaar nii bala nga wax lo ma li ma wax lo li ni da nga wara am sa indépendance Amadou ma man toog na président Macky Sall na ko daa koo jàng ñii njëkkoo leen ci parti bi yaa ngi dégg xëy na dañoo réunir waxtaan moo tax ñu jox leen ne leen doxalal yaa ngi dégg. Amadou Ba lépp lu mu mënti doon warul woon attaqué sax waa Benno Bokk Yaakaar. mais attaqué wu leen. non si nee na wuñ ko waxul dëgg. waxul dëgg. waaw ma rek moom ka lay attaqué chaque jour naan ko da nga doon sàcc mën na la tegal moom foofu la war a orienté débat xam nga problème bi

comme par exemple Macky Sall dina dem ba ci biir récupéré waat ne non non damay taxaw kon a Ba ci lu mu nekk moo newul dëgg. waaw boo seetee tamit. soo gisee amoon président Macky Sall. Mhm. am nga information journaliste nga. waaw moom président Macky Sall waxtaan nañ affaire mu dem France te président Macky Sall ko bu nga xañ population sénégalais génération bu mujjee ñëw ay problème yenn détails yoo xam ne arrangé wul sénégalais yi président Macky Sall ne ko non lii man ànduma ca yow ndax man mënuñoo liggéey Sénégal ba fii nii ëllëg ba génération bi war ñu war a exploité ay yeneen détails de pétrole beeg yooyu Amadou Ba ne déet di jox ay diggé yoo xam ne yow foofu doon na ko président commencé woon Amadou Ba soo xëy loolu waxul c'est faux ngi dégg gën ni da war a gore mhm. ba nga soxlaa dañoo xañ ñoom jox la kon moom waru woon souligner loolu sax moom ay nitu ma Sall lay topp di récupérer di jël mhm. moom nit ki soo ko bàyyee mhm. waroo wóor ba tëgg di jël sa téléphone di wal yenn maire yi da nga war a créer sa base imposer sa bopp yaa ngi dégg mais bëtu tapetam yooyu noonu moom ko war a song song ko moom warul song dara du ko Macky Sall Ousmane Sonko fii la ko takkal fii la ko takkal na ko da dañoo bokkoon domaine ngay ngay jël mu bu da nga ba léegi tontu ko cité ko président Macky Sall tontu na moom la tontu te moom mi ngi Sénégal gi yaa ngi dégg mais nag lii yëpp waxoon nañ yaa ngi dégg moom na xool jii liste bi nan la mën a defee ba récolter yenn député yi mais yaa ngi dégg mais opposant du président Macky Sall yaa ngi dégg opposant mooy Ousmane bu koy song ku dégg bëccëg di koy xas di koy wax loo xam ne xaw ma ndax am na xaw ma ndax man de gëm naa ne sax am na ndax toon na ndax weddi wu ko weddi ko. léegi bu ñu waxoon ne parce que euh, comme ni nga ko waxee président Macky Sall moo ko dem est-ce que newul dafa bàyyi àndam dem ci àndu jàmm. kan bi wàcc sa ànd boo demee ànd jàmm bu fekk fa borom mu toog parce que boo boo boo jëlee ña nga doon àndal démb waru la jiital te jiitaloo leen dem jiital koo xam ne que peut-être àndu leen démb waaye tey ngeen àndal nga jiital ko donc bu la waree est-ce que newul c'est normal. saa yi nit dafa lëndëm ñun discours bi ñu mos a tenir fii nii gouvernance man yàlla dafay dimbale audience bi président mosoon fekkee na. Mhm. président de président président ci boppam. Mhm. président ci boppam moo ne ko mosuñ laa wàcce nga nekk ci plateau yi di wax mhm. mosoo xas APR. mais ku yor du sotal. dëgg moom da doon yor ba téye lu muy téye commencé di wor. bu ñu déggee bu ñu déggoo ci kàddoom dem bu ñu déggoo ci kàddoom ci soxna bi nee na euh, président Macky Sall li tax ñoom ñaar neexoowuñu c'est parce que euh, président da ko wax carrément ne ko élection yi dama ko a pousse mu ne ko d'accord ma ci. waxulam c'est faux c'est faux Amadou Ba moom moo jiiñ ne gars dañoo dañoo daa am corruption daa am juge yaa ngi dégg président Macky Sall ne leen comme que loolu am na mais nañ ko saytu ba mu leer mais léegi ba gars yi waxtaanee consensus ba ci ci ci barke la nit ñi demee élection. ci barke ci barke tam dafa bañ. waxul dëgg c'est faux gën soo doonee soo doonee leader bu nit ñi lay topp non da sa kàddu sàmm sa ngor sàmm mm-hmm. yaa ngi dégg nit ki lépp la mës a defal démb ñaata ministère lañ jox Amadou Ba mais gënu fa jàng kenn. jën Farba Sarr amul lu mu sonn ci parti bi Mani Ama Sarr amul lu mu sonn ci parti bi Awa Gueye amul lu mu sonn ci parti bi yaa ngi dégg ñoo war Macky Sall ñoo ñoo war Macky Sall ñoom ñëpp yaa ngi dégg Macky Sall moo leen créé tey ñu def seen lobby pour xeex Macky Sall. ñu gisoon c'est faux loolu amul. du dëgg moom moo goree di génn di wax moom warul wax. gën nag su noppiwul am na lu bari lu xam te dinañ wax. Mm-hmm. suñu su noppiwul dinañ wax nag dinañ wax am na lu bëri lu xam. yàlla dimbale nañu ñu ngi wax ak ay kilifa su saaganee wala dinañ wax waaw. ñu gis euh, euh, kii nga xam ne mooy euh, madame Mimi Touré nekkoon ci yéen ñu jékki-jékki ci yéen. non kooku. mu dem Pastef. moom. xam ne bon nit ñi poste boobu dañ ko doon xaar mu occupé ko ci place kooku moom saa moom ku gën a ku mas a gagné sa bureau tamit kooku man bu ma sax ñu développé quoi gën a da da ngay am base politique avant tout base la mais ñu waru la jëlee rek yaa ngi dégg ñu benn benn benn benn benn kii ñu joti noonu nga mën a waxee sax benn xulookat yaa ngi dégg ñu teg la ci ci ci ginnaaw président yaa ngi dégg léegi da ngay am base fexe développé ñii li ñu doon tey moom war na mën a doon suba yaa ngi dégg mais pour loolu yow yaa ko mën a liggéey tey mais nit ko war a di toppee di toppee chaque jour yaa ngi dégg léegi mosul gagné bureau de vote élection législative yi nii boobu moom moo moom moo tëdd liste Kaolack waxee Sénégal yi ma nga ñëpp may déglu mhm. man maa yàqoon élection yi fii Kaolack génne wax point de presse woo journaliste yëpp neen gars yi dañ ñuy gagné Kaolack yaa ngi dégg ndax gars boobu wàccuñ waxtaan ak askan bi te kuñ jox tëdd liste koo xam ne mënoo gagné sa kër yow ni lañ lay joxe ngay jiite xëy na nag voix bi ñëw na voix Ousmane Sonko bi yóbbaale ko mu gagné mu yaakaar ne am na dara Kaolack mais Kaolack soo ko demee am fa dara mii amul dara mii dañ koy yóbbaale rek te pour man ne soo jàng man maa ngi salee xam-xam jàng na quoi loo ko mun doxal jàng na te day argumenté mais lu ma koy conseillé mu jéem a retourné ci basam liggéey basam jàppale waa koñam jàppale Kaolack nangam foofu la ngay xaar. mais est-ce que tamit di di di tax euh, amoo amoo leen woon base ci yi yéen waa APR nekkul ni que comme ni nga ko waxee Mimi lu mu sonnoo li madame Mimi Touré lu mu sonnoo ci ci ci Macky Sall te jox nga fa poste est-ce que bu ngeen ko joxoon poste tey di ngeen di ngeen daal. Mimi moo fi ànd ak moom élection gagné élection yi dañoo gagné. élection yi député yi quatre quatre-vingt-un quatre-vingt la yeneen préférence yi ñëw jàpp ci kon xam nga ne lu ñu baaxul. dëgg ah Mimi mosu moom élection gagné yaa ngi dégg. maanaam madame Ndiaye day faral naan boo xam ne chaque jour moom mun na jël bagage am dem waa passé moom nañ ko préparé bagage am dem suba suba mun comme xorondo yaa ngi dégg nit nag foo nekk fu nekk da nga war a saf-saf xëy na nag interpersonnel am moo taxoon pour présenter assemblée yooyu noonu xëy na dem nañ ko ba xaj ci condition génn na dem na uti dara mais su ma soxlee dama koy éviter mu dem uti maras waaw ndax bu di topp rek sa interpersonnel amul sens nit ñi nit ñi yi ñu ànd ak ñun mënoo cee gis kenn ñeene koo ci gis ku ne da nga yéene sarax am na sama benn copain maa ngi koy salué au passage Ismaïla Konaté ku ñaaw saaru bu la may ñaanal Ismaïla soo ko sarax te 2015 la ñëw fii nii ñu ngi envoyé ko mu ñëw Ismaïla fële bu muy fële bu muy yor di daal su dee diggante fii fii su ko defee bu baax te mii mënu ko jàppale. dama dinaa topp ci maa utal mënoo maa sax fu may liggéey. yow yeneen jeunesse bi dinañ am dinañ engagé wu di lay jàppale ku ñëw sa aw la may ñaanal ah tey man nit ñi man mënu maa yóbbu fenn su ma xoolee moom su ma doon sa envie tam ba ànd ak nit ñi non du ma ànd ak nit ñi quoi ndax ku sa aw moom du la may ñaanal. ñu gis euh, si région de Kaolack am ay euh, comme ni nga ko waxee ay mairie bëri nekkoon APR euh, ñu yaa ngi dégg mais man nag wax dëgg yàlla. maa ngi gërëm jeune Pastef yi. waaw parce que xam nga ñoom ma leen gërëm non ñoom dañoo mën li ñu doon mais yow mënoo topp loolu topp doon benn max xam nga li max. xam naa max est-ce xam nga max max. xam naa max maanaam tey maanaam tey nga defar sa ñoom ñax ba mu baax ñax bi topp di lekk bant bi di lekk bant bi ba bant bi jeex nga bàyyi waat fa demal defar sa beneen néegu ñax max bi topp noonu mais jeune Pastef loolu lañ teel a xam ne ku ndóobin rek sama doo gis soo gisee lu ñuul tawal ñii nii affaire lañ ne woon su ànd ak président Macky Sall ba président Macky Sall daanu di fen di kàcc di nga ko wax lu ñu dëgg ba président Macky Sall daanu léegi ñu wëlbatiku demande dañuy demaat Pastef booy ne non non lii du fi amee transhumance du fi amee yaa ngi dégg nit ñi nag soo dem kër jàmbur yaa ngi dégg seen papa bugg la soxlawul doom bi soxlawul la di xeex sa tur ci réseaux sociaux nga war a war a toog nag am ngor cinq ans yàggul c'est est-ce que liggéey ngeen loolu tamit parce que bu ñu gisee euh, maire bi nga wax sànq ne mbaamu àll la ñu jógee foofu ñu dem Ndofane gis euh, ex ex maire dafa nekkoon di monsieur Mame Samba Ndiaye jógee fa dem Pastef léegi fa la nekk ñu gisaat lu maire actuel jógee fa mu yëg muy El Mouhamed Aly jaw jógee fa demaat Pastef donc ak ay maire yu bëree bëri bëri yoo xam ne ñu ngi Pastef léegi te nekk si euh, région de Kaolack. est-ce que li ngeen waroon def ak ñoom def ngeen ko waxtaan bi. parce que ont fait la force. non mbooloo ne doole. waaw pas bañ demee seen dem dafa avant élection yi la ñooñu dañ leen di saluer sax ndax la le mais bàyyi ba daanu amul loo Ousmane Mais lu wax ko lu wax Ousmane point de man a boobu damay saluer waa Pastef seen mot ak seen gëm-gëm. xam ne transhumance jëmulul fenn population bi ñoo leen fal. yaa ngi dégg te maire buy dem moom suñu mooy ànd di dem mais pas ñu ko topp. transhumance amatul fenn te ñoom ñoo ñoom seen leader ci boppam moom moo génn wax ne kenn ku nekk fa nga toogoon toog fa Ousmane Sonko. avant moo ko waral. kon ñu daal non dañuy sonal seen bopp rek dañuy sonal seen bopp rek te képp koo allié du de yaa ngi dégg ci parti allié yi ngay jaar ci parti allié mais pour dugg Pastef mu non non dugg Pastef ndax ñoom jaayatuñ seen carte Pastef amatul carte bu ñuy jaay ñoom fees na ñoom jaayatuñ carte yaa ngi dégg képp ko am doon ko amuloon comité ko am kon tey jii waroo jaay sa ngor dinaa da ngay buux lu foo xam ne soxla wuñ la ni da diñ président Macky Sall lu mu leen defal créer leen ba ñëpp xam leen. waaw parce que boo boo boo comme. créer mu dugal fa courant. mu defal leen forage. yaa ngi dégg ba population gis seen bopp man la gëm ngir président Macky Sall nga wër ma tëggu ne non président Macky Sall mais mais ba la ñuy campagne seen dëkk. waaw parce que may nga ay laaj may nga ay solaire léegi yow ëllëg soo wëlbatee ko dem di xas président Macky Sall xalaatoo loolu noo ko fay waxee. waaw parce que parce que man euh, si si li nga boo demee ba euh, euh, Ndioufane fa nekk. yëpp grâce mu ne mu ne yi nga ànd ak say nit ñu. poste de யூசுப் போல tey o grand président Macky Sall yow nga ne yow maire nga toogoon doon ko fa wax. o la vaar yaa gën. waaw vaar yi. xamuñu ne yow dañoo sant si vaar ci loolu ba mu ne leen vaar ñun moom rek la ñuy campagne de. dëgg la ñun o préfet campagne mooy o jënd suñ camion bu mag doon ci suñuy kaye def ko boo gis nag dinañ fa dem dinañ teg dinañ teg keneen wax sa maire waroon wax ni président Macky Ah, di salué nag Aïssatou Diatta. Aïssatou Diatta waaw di koy salué bu baax. ci engagement yam ci taxawaayam. moom waaw ci taxawaayam doon meeru Ndiaffane. Mm-hmm. waaw di doon yàgg représenté assemblée moom suñu moom Youssou Bengelloune soo demee hôpital bu mag bii tey Youssou Bengelloune moom lu mu fa investir mm-hmm. ci côté conseil départemental ñu koy salué ñun loolu la foofu la ñuy xaar quoi mais pas politique ay transhumance ak yooyu ñun xaaruñu leen foofu. su la joxee moomu tànk da ngay fexe booy participer ci dëkk bi. kon Youssou Ben Salou nga dem Ndiaffate ay sot bu mu participer ci commune yu Ndiaffate maire yeeg yooyu noonu hôpitaux yi yeneen ak stade jeunesse beeg yooyu ñun fa la leen leen di xaar. dëgg la comme ni nga wax euh, tey nekkee ci affaire suba euh, président Sonko toog ci ci nguur gi nga jógee fa dem Sonko euh, dem Pastef gannaaw suba est-ce que bu keneen toogee doo dem foofu. mais Pastef loolu la doon xeex mooy mooy roñu roñu dem. Pastef loolu la xeex est-ce que xam nga ne man tey tey jii su ma bëggoon dem Pastef dem Pastef maa la wax fii nii xam na ne may dem Pastef ndax ñu ngi lay tàllal loxo côté bu nekk yaa ngi dégg. dëgg la da ngay am gëm-gëm am commission conviction man président Macky Sall man sama mbéy dama ko jàngee Macky Sall man amoon dama amoon Jakarta amoon Takti amoon sama yenn business yoo xam ne mais parti man daluma dara. yaa ngi dégg mais alal man ma ci parti bi man sama gëm-gëm laa demee yaa ngi man man maa ngi ci parti mais parti bi defuloo. bu euh, li ñuy wax euh, ku ku béy sa tool xaar loo nguur parti bi parce que booy investir tamit li ngay investir dafa war a jur. non parti bi soo gisee ma ne xaaruma dara li nga jii maanaam soo taxawee sax ngay sarax nit mm-hmm. yaa de dégg mm-hmm. dañuy xalaat leen te xalaatoo ci yàlla doo am. ñu da ngay def te yàlla tax. dëgg ak sa conviction. ndax politiciens yi dañ leen ko looloo. dëgg la. yaa ngi dégg imaginez yenn poste de responsabilité yu baaxoon Kaolack yëpp poste yu ñu doon joxe ñooñu dañ ñu doon teg di koy jox ñeneen. dëgg la mais ñeen nga doon jox ñoom ñoo bàyyi parti te ñun ëllëg suñu bàyyi parti kenn mënuñoo wax dara ndax parti bi dafa lu ñu dara mais ñu doon jox créé parti bi créé leen parti bi créé leen ñoom ñoo bàyyi parti bi.

am nañ sax am nañ cinq cent millions loolu kan moo koy justifié. donc yow tu penses que. man euh, góobu ko loolu ñuy wax noonu. ah man góobu ko loolu kobar guñ jël la def ko def ko seen bopp yaa ngi dégg yaa ngi dégg mais pas ne ñoom ñoo ñaa ñoo ko cotisé. nga yaakaar ne loolu sax euh, euh, teelu ci di wax ni ay lekk dund bi seer na lii ak lii seer na nit ñi naan leen. man dama yaakaar ne Seydina Ousmane Sonko li ngay gars yi di ne ñoom seen naa Ousmane Sonko chef de parti Pastef pour man dafa liggéey booy te jàpp naa am ñu bëri ñoo xam ne bay xëy joxul si seen yaay mi ngi jàmbat fonde fonde fonde téeméer gën waa livre suukar fanweer gën waa livre meew cent cinq cinquante pour ñu jëndoo ko seen yaay defuñ ko dem di ngay jox naan dañu koy corsi te soo waajur fu mu mën a yóbbu parti kii politicien mënu la ko yóbbu kon nit ñi dafa ay ñur caaxaan la man koo moom gomo seetaan ñooñu wax noonu ñoom ñoo ngi côté seen biir rek mais pas booy man góomoo ko ma tan len dul tëbiteen yo bañ nga mel dekk ba bi yo tam xar bu sama gar gis nañ de yo yi def cere xam nga ko yomb xam naa yomb bu baax yomb Sénégal yomb sax yombatu ndax gisatoo ko gisatoo kër gi toog teel def ci yom gi rew bu ben métti gisatoo ko te la ngay jaay rew bi moom métti mi ngi melni magge fo la lu met métti kon ñoom dañ leen far bu ñu jublu ci liggéey senegal ñoom ñoo wax na mën nañ ñoom ñoo wax ne suñu leen joxee ñu defar population foofu lañ leen xaar. dëgg la tey jii man damay saluer président Macky Sall ñoom ñoo waxoon ne arena bi amul woon njëriñ. te tey yaa ngi dégg berte bi nii. Mhm. soo dugg soo dem arena berte bi ngay dugg kii kon kii. booy dem euh, soo dem arena kii bi ngay dugg météo kii bi train bi train ngay dugg train mhm. wàcce la mu wàcce la jot ñaar nga dox dem kii arena. kon yaa ngi dégg kon kii ne promesse électorale ak soo duggee ci kër loolu moom sa dëgg dëgg la bu ñu jógee foofu euh, ñu toog ci nguur bi doon xeex démocratie euh, jamonoy euh, président Macky Sall tey ñu gis ne démocratie boobu daa commencé soo parce que bu ñu gisee li ñu def Bougane Gueye bàcc dem ko ñu métti lool ñu métti Sénégalais lool est-ce que loolu jàpp na. non sukkuraat fii ci Sénégal ñun ñii ñëw rocc suñu nguur. xam nga luy sukuraat mën nañoo gëm ne lii dina dund lii dina baaxaat mais nga ñëw ñu rocc suñu ru sa ruum kooku moom dañuy gas ba mu baax rek yow baaxee rek suul la six mois xamal leen de social bu ko defati ndax foo jëlee sa alal di koy yóbbu ci nit ñi mën nañ la cee tëj ndax bu ci luñ dégg ci luñ juddoo ñu am problème mu fa yóbbu ay te ñun ñii sax ñu ngi dëkkoon kaw ay jamono xam nga ne tëdd ci ndox daa métti togg ci ndox daa métti yaa ngi dégg yaa ngi dégg nit ñi gis ñëw di lay dimbale kooku maanaam am na lu lay satisfaire say mbéy dee dégg naa say xarité amatoo dara kii jógee Dakar Bakel ba Dakar dox ay kilomètres dawal ko lépp lu mu mënti def rek war a xoolal rek ko mën a arrêté war nañ ko mën a jéggal bàyyi ko xam ne population ñoo ko tax a

day ñëw Bakel kenn amul droit dugg Bakel yow nga dafa fos da ngay forcer pour dugg est-ce que tamit nekkul moo léegi man léegi man président zone ñëw Kolobane amul dugg Kolobane amul droit dugg Kolobane. yow ak nga droit dugg Kolobane mais. Euh, président c'est la président c'est la président tous mhm. la man ma manqué respecté son président son président la manqué respecté kenn du ma wekk. Mhm. yaa ngi dégg ñun ñu ngi salué président lu mu doon def lu baax la. ay nit say njaboot am problème nga dem di leen jàppale loolu lu baax mais bu nga dem ci njabootam la bokk ci njabootam la bokk ñu ngi ñaan président na bàyyi bu ñu bàyyi ko mu dikk. parce que li doon bañ ñoom moom la ñu teg dugal boo seetee. non ku doomi rey sama am soo gisee lu ñu dawal ndax politicien chaque jour moom damay cherché dem kaso lay cherché mais nit ki lu nit ki su lay si nga man li laay cherché yow waroo ko ca fekk si. waroo ko ca fekk si mm-hmm. pour man bu baax ñoom lu mën ci def tamit. même si am acte politique dañ ko doon bàyyi mu dem xam am nit ñu sonn loolu doo ko ñoom sëñ defee ko yaa ngi dégg kër kilifa den ñu ngi koy defee yóbbu seen aide dimbale leen loolu bu ko mën a jéggal toléré ko bàyyi ko mu ni am tolérance quoi. bu ñu jógee foofu euh, ñëw parce que li ñuy wax balaa ngaa jéggaani kër jàmbur dama fekk sa kër neex la ñu ñëw fii ci ci kaw la ñu gis euh, euh, le maire confiance euh, am am fi bi bi def élection am fi yaakaar bi mu même pas un an ñu commencé deful li bi wax non da nga fekk sa taw. Hmm. la ñun ñun. di ah. président. ok ñu dellu si waat oke, Kaolack. waaw ok waaw man problème sëriñ boobu nah, dinaa ci mën participer ndax man faluma ko. bokkul si ko fal. campagne lu ma ko man Mawne Ndiaye Rahma sama candidat ndax man APR laa bokk président Macky Sall moo ko ma àndam moom. yaa ngi ñooñu ñooy wax ñan ñan. bëri na bëri na ci ñan. ci ñëpp non sëriñ non da ngay ne ci problème inondation yi Kaolack moom da nga gis gars yi génn gars yi dem ci école yi. Kaolack chaque nawet gars yi dañ doon génn ci kër yi dem ci école yi. dañuy waxtaan te yàlla tax quoi mais ñaata at ba sëriñ bu jëlee mairie ba léegi kenn génnul dem ci école yi. yaa ngi dégg tali man marché bu ndaw xeex naa ko ba taay te district sanitaire foofu la nekkoon. Serigne Diouf ñoo ne dafa ñu fa tali ñu ngi koy salué au mais xale mu dajul suuf ak lanaat ñun ñooy yuux waxal ak lanaat daala xamal leen nag fii ci kaw am na ñoo xam ne intérêt personnel la ñu amut Serigne Diouf kooku moom naa ko waxal ndax ñoom ñoo fal man du ma la fal tey suba ma saaga la day ne la baaxoo ñoom ñoo doon tey te mun ngaa rax ma sàcc la suba ko wax moo ko jaay lu ne ñoo xotam ko dëmm lu ne ولما تكون عن سرب سرب ولما تكون عن سرب موضع جاي فردي بوب أسكان مكالا يعني ده كل يوم قرن يوم وقت كان يجيبوا له أسكان مكالا كشوف كده أسكان مكالا دنيا كم نامونا عن المكتب نام كيبابو يعني ده لما نقوم غربا سرب ما دقي الله ما نقصني أو باساس خو ما هو خمانه هو يعني ده شو خدرا يعني ده daw ma bureau ñaan ma ko audience yaa ngi dégg nga man doxee ma noonu def ci kaw la ñu koy seen am comme am nag euh, ku moom te bàyyi intérêt kaw la mais na loo xam ne yow gis sëriñ boobu mos nga gis maire bi fi toog yaa ngi dégg mais sëriñ moo fi indi ay pel pel ay cataplan. waaw yaa ngi dégg. que non si ndax ñu ngi cuire yaa ngi dégg indi fi ay oto yoo xam ne ñoom ñu ngi ràkk setal dañ waxante dëgg indi fi koor bi yaa yàlla yéex ku fi amoon néew da ngay luwee ji oto mm-hmm. yàlla yéex da ngay dem mairie bi taxaw ñu defaral lay sare yaa ngi dégg mais loolu suggestion bu baax la dañ koy saluer yaa ngi dégg mm-hmm. nañ bàyyi di xalaat ñaam ak ñoom sëriñ bu problème dañ ko dem régler ailleurs te bàyyi intérêt kala ñu koy politiquer man foofu laay woo kala waaye ak yéen nit ñi génn di xas sëriñ bu nit ñooñu dañoo war a ràññee ndax yow bu doon xas say démb sëriñ boobu nga ñëw ci mun njaay di ngay tàgg yow mun njaay bi lan la war sax. dëgg la dëgg la am ñu naan compétence yi des na parce que jàngul. jàngul ñan ñoo la ko. du ma joxe samay source. entreprise di nga ko yor te jàngoo. mais alxuraan la jàng. alxuraan du jàng. nasaraan. alxuraan du jàng. jàng la tey ba est-ce que ma xamal la benn affaire tey nga débuté ci daara alxuraan yaa ngi dem ba sori ci ba wàcc kaabi nga dugg yow yaay raw sax yaay gëna a kan? ku ku na salam ki dégg ku gisaare entreprise sa bi ay yalla nak yalla nga jang nañ bàyyi li ñu wax nañ bàyyi yoonu kon su jang ñok li tax ñu koy fal di ñu koy ngir kaw la. loolu moo na parce que parce que nañ ci mum yaakaar comme niñ ko waxe gis nañ ne bayna ay ay ay auto mu ngi wax dëgg yàlla euh, am na ay programme yo xamne damay dem dama koy. kër na wax bi dama wax deug fi ay bukkee fi doon nekk ñun fa lañ doon fooy jee teenee maa ngi daan xoolal